sunu gan euh, Babacar Mbaye Ngarax salaamaaleykum. waaleykum salaam Babacar. di nuyu El Hadj Ndiogou Diène nit ñi àndal ci waxtaan wi ñu fàttali ni euh, yaa jiite Saba kuréel goo xam ni la wallu assainissement ak euh, yembal banlieue bi ci wàllu woowu moo ko tax a jóg sosoon nañ ko ci at yeenu weesu di wax itam conseil municipal nga euh, ci euh, ban mairie di sax euh, bu mag bi géejawaay am yu ndaw yee ñu ne foofa <laughs> waaw ñaar yëpp rek ñaar yëpp <laughs> waxe na Nimzaat nekk nañu civil waxe na Nimzaat mi ngi noonu mm-hmm. dañuy bala ñoo sóobu ci wàllu assainissement ak yeneen problème yi ñu seetlu ci banlieue bi dañuy njëkkee la xew biig ci mairie Euh, kër Massar euh, ambulant yee dem toj mairie ba jaxase ko ndax ñu ne dañ leen a aaye ñu jaay ci rond Kër Massar loolu noo ko gisee lu doy waar loolu. waaw kër ni nga lay ñaan nga may ngi d'abord ñu daal di nuyu mbokki auditeurs yi téléspectateurs yi tey aussi profité ci occasion bi aussi pour euh, sant technicien ak ñëpp ñu liggéey groupe Futurs Médias di ñaawlu mbir mu mel noonu rek waaye def naa ne aussi eh, marchand ambulant yi amuñu woon droit noonu comme aussi. waa mairie bi amuñu waroon nañoo moytu coow lu mel nii ndaxte liggéey dafa am réew dafa am solo ci am réew ndax bu fekkee dooleem kese la yaakaar te bu ko bu bu ko jariñoo ci naka yoon su ko jariñoo ci lu baax ngir tedd mook njabootam dañ ko dañ ko war a yombal te jàpp naa que ni bàyyi ay marchand ambulant liggéey ci période tabaski gi ñu encadré leen organiser leen wàññiwul woon dara waaye ñoom aussi ak lu mënti xew rek waruñu woon fajal seen bopp ndax dëkk bi aussi defe naa ni ko accomplir am na yoon. su ñu amee leen naqari war na mën am yeneen canaux yu ñu ko ñaxtoo waaye nag ñaaw na jaaduwul waaye nag waxtaan weesul nañu xool nu ñu ko trouver solution rek mu gën a gaaw Alain Ndiogu. Mhm. est-ce que ñoom euh, ci commerçant li ñu wax mooy instant bi tabaski beeg yooyu bañ euh, mu rëcc leen est-ce que maire bi tamit euh, bu ñu leen bàyyi woon daañu mën a sàmmonteeg digle yi surtout jamono ji ci nekk ci coronavirus bi mesure barrière ak yooyu est-ce que jaaduwul tamit ñu tëj wala ñu sàmmonteeg sart yi. waaw mais xam nga su non tout à fait d'accord mais xam nga suñu ay marchands ambulants fa tamit aussi ubbi nañu dara lii te yaakaar naa ne rassemblement ma nga fay am ubbi nañu marché yi nga xam moo nekk marché yi am tous les def naa ni amul benn marché am équipement tëj nañ leen ndax wàllu corona def naa ne corona actuellement am solo rek mooy mesure barrière yi nga xam dañ ko war di jëfee saa su ne ñu di ko jëfee en toutes ndax bu ñu demee ba ubbi at école yi ubbiwaat jumaa yi euh, yi ubbiwaat marché ubbi daral yi defe naa war mën a nangul effectivement marchand ambulant yi que ni ñu jaay seen njaay daan seen ko ci dund surtout ci période tabaski waaye nag taxaw ba tey jox leen dëgg ci niñ joxalee ndax réew dafay weesu suñ bëggee am jàmm ku mer fajal sa bopp defe naa ne aussi amoon na yeneen kanoo yoo xam mën nañ fa jaar ba ñu dalal seen àq seen yelleef te duñ jëfe seen doole ba saccagé maire mbir mu garaaw la mbir mu ñaaw la te Sénégal weesu na foofu. Mhm. Euh, banlieue bekki jafe-jafeem xataay baak euh, mbënd euh, taw yi njëkk wadd ci Ndakaaru est que. feeñal nañ mandarga yi jafe-jafe yu ñu woon a ci fan yi ndax ren ñu taw dana euh, bëri ak liggéey bi nga xam ne moo waroon ci mooy tund ko wala wàññi ko est-ce que am naam déet ci seenu jàngat yéen waa Saba di kuréel bi nga xam ni assainissement banlieue bi moo leen tax a jóg ngeen ni euh, ci loola. waaw njàqare ak tiitaange moom quoi compliqué rek commencé waat na habiter les populations de la banlieue particulièrement et peut-être sax même waa Sénégal gépp quoi ndaxte boo xam ne dañu annoncé que ni incha ndox nar naa bëri. dafa naa ne su ma jumul ñu ñaar wala ñetti taw au maximum au Sénégal te kon ñi ngi xaar yeneen taw yu gën a bari bu fekkee ci ñaari taw kese la ñu mën a gis li ñu gis si banlieue bi ça veut dire que ni e, ragal nañ ni dinañ dundaat calvaire yu ñu doon dund ci année yi jëmoon ay 2009 2005 2006 jëm kaw te nag pourtant waroon nañ koo mën a weesu ndax bu ñu fàttalikoo le président Macky Sall bi accédé au pouvoir bokk na ci mesures yu mu njëkk a jël annoncé benn programme décennal de lutte contre les inondations ñu xayma woon ko war cee dugal sept cent cinquante milliards wute na loolu ak sept cent cinquante millions te jàpp naa ne aussi le président Macky Sall li mu fi fekkoon président bi ko jiitu muy président Abdoulaye Wade réalisé ko woon ci wàllu ouvrage yoo xam ne dafay permettre ñu drainer les eaux pluviales yóbbu leen vers la mer def ko ci bassin de rétention def ko également ci politique de déguerpissement recasement maanaam daal liggéeyu ci inondation lu bëree bëri bu ci président Macky Sall taxee woon euh, annoncé ki sept cent cinquante milliards. ci programme boo xam ñu ngi ko war en dix ans maanaam deux mille douze jàpp deux mille vingt deux tey su ñu nekkee en deux mille vingt soo boole yi ma la wax yëpp wax dëgg yàlla war nañu mën a weesu jafe-jafe yi ñu tollugum war ko mën a am loolu nag tekkiwul ni amul ay avancé bien au contraire am na wax dëgg ay jéego yu am solo ci wàllu lutte contre les inondations ndax amoon na ci quartier yoo xam ne su mosaan a xiin rek nit ñi takk seen i te tey nit ñaa ngi mën a dëkk waaye nag jàpp naa ni effectivement par rapport ak li mu fi fekkoon. doon ko ci président Abdoulaye Wade ak aussi 750 milliards yu ñu war a def ci benn programme boo xam ne 10 ans la tey ji ñu nekk déjà 8 ans wax dëgg yàlla nag waroon nañoo sori maanaam ndax résultat yi waroon na waroon a ëpp fi nga xam ni fii la ñu fii la ñu tollagum. lan la ñu waroon def lu ñu deful ci wàllum euh, résultat yooyu jëm ci xeex inondation yi. waaw bokk ci euh, maanaam. Euh, saytu sax ouvrage yi ñu dafa am na ay at ci ginnaaw amul benn occasion bu ñu manqué que ce soit en conseil municipal que ce soit rencontre avec autorité que ce soit sax mbedd bi nii wala émission ñu ngi alerté ci ni am na ouvrage yu ngi def mu ngi exemple lu mel ni bassin de rétention yi a yi nga xam la ñuy ay kano à ciel ouvert nga xam ni dafay war a permettre ndox mi mën a dem ci bassin yi bu jógee ci bassin yi dafa lakk yi bu jógee ci lakk yi dem ci géej gi dañ ko liggéey dépensé ci ay milliards waaye après amatul benn entretien amatul sax ñu fay toog di ko saytu ba nit ñi mun koo yàq ndax da nga dem ci bassin yoo xam ni nga dañ koy transformé en dépotoir d'ordures loolu nag du fóotu état bi. maanaam bassin yi nit ñi dañ ci sotti mbalit muy fat loolu du fóotu état bi fóotu askan wi la waaye comme aussi Sénégal nit mun te yar moromu nitam en fait je veux dire pas nit mais euh, citoyen simple rek mun te yar morom citoyen da doon jaadu nag état bi jëfandikoo ay jumtukaay ndax police bari na fi police boo ci dem tey ji am na ay ASP. mu nekk agence assistance sécurité de proximité xanaa war nañ mën di jëfandikoo yooyu ñuy surveiller bassin yi maire yi également am nañ agent yu doy yo xam ne war nañ mën a surveiller bassin yi ba kenn fo mën a sotti ay mbalit en plus nag de euh, campagne de sensibilisation yu kuréel yu mel ni ñun ak ñeneen doon def ci wàllu askan bi sotti mbalit yooyu demoon na ba commencé euh, yàq yenn bassin yi ci wàllu xet waaye doon yàq également ay canaux à ciel ouvert dañuy yàq même canalisation yoo xam ne sax dina commencé indi ay obstruction maanaam ndox mi dootu war a jàll fa mu war a jàll waaye su ko askan day def la ñu mën mooy ki nga xam ne moo fi nekkal buur ñu alerter ko ñu alerter ko ba tey te gisoon nañu benn jugo euh, euh, benn jumtukaay jël ñu ko ci woon a tey mu jur rek li nga xam ne moom la moom la commencé di jur waaye gars yi boo demee ñu ngi commencé rectifier tàmmoon nañu également bassin de rétention yi ngay wax euh, ay jamono am na ay nit ñu bari ñu ci ñàkk seen bakkan surtout ay gone ay tout tànk yoo xam ne dugg ci biir faatu ba ñu tudde woon sax bassin de la mort euh, tey ji euh, situation boobu ndax soppeeku na waaw na ba parce que li ko doon indi mooy bassin de rétention yi dañ ko clôturé naa ni <laughs> Georges Dëcc daa dañ ñëw ci lu bare bari ci banlieue bi moog asumbenn ci bu ma la ñuy nuyu au passage ñu leen wax à l'époque ni bassin de rétention yi ki seen jamono boobu nu ñu tolloon ñu ngi nekkoon ay provocation par dañu doon provoqué soit ay mort d' enfant par noyade wala ñu provoqué inondation parce que boobu dañ ko clôturé woon waaye léegi wax dëgg yàlla clôturé nañ ko dem nañ ci également sax ay grille de protection ba nga xam nit ñi amatuñ ci accès lu dul rek ay nit yu inconscient quelque fois nañ ma ci terrain bi ñëw taxaw ji seen mbalit sotti ko ci kanam mais day moom mënatu fa am parce que nit ñi mënatuñ faa dugg suuf nag koo xam ni da ngaa bëgg a escalader mur bi tëb gri yi dugg ci biir loolu moom kenn mënu ci lu bari mais day daal pour ma résumer daanaka amatu fa. loolu ñu ngi ciy sant bu baax a baax. Mhm. da nga jiite itam euh, geneen kuréel gu ñuy wax euh, Sauver le Sénégal euh, Sauver Sénégal ci ci lan noonu. balaa ñu ci doon égo si bëggoon naa rek ci wàllu gestion inondation yooyu noonu. Mhm. dafa ci am benn métti métti bu ci am bu jéggi dayo ak benn injustice. ndax maa lay wax sànq bokkoon na ci bu ñuy lutte inondation yi acte fort yi njëkk a jël mooy. déguerpir population xam dañu nekkoon dans des zones édificantes ay zones yoo xam ne aussi quoi qu'on puisse dire elles étaient inhabitables ndax bu xiinee rek daanaka sax ndox mi nangu ko woon président laa daal di ñëwoon euh, am plan bu mu lancé muy le plan Jaxaay nga xam mi ngi doon tourner rek autour de deux heures saa jël simp nii ci ndox mi yóbbu leen ci zone yoo xam ne du taa mu concerné woon à peu près 3000 familles président Macky Sall ñëw eggale ko mais bi may wax ak am na ci ay 353 xam nga 354 familles. en a cas rek trois cent cinquante et quelques familles yoo xam ni seen ay kër ñu ngi ko tojoon depuis deux mille cinq deux mille six aujourd'hui on est à deux mille vingt ba tey ñu ngi daw ci ginnaaw seen i kër yooyu mënuñu sa jot jàpp loolu non sama injustice sa waaye su mën a nekk suñu réew mu toll nii dafay firndeel rek benn mépris wala benn indifférence bu état bi am ci sunu askan wi nga xam ni jege naa jàpp naa ñenn ci côté banlieue bi ndax amul dara lu mën a justifier état toj kër jàmbur depuis deux mille cinq deux mille six ñu nekk ci ay junni famille ñu recasé ay deux mille et quelques mu des trois cent cinquante trois jàpp trois cent cinquante ba tey 2006 ba 2020 muy 14 ans après nga toj seen i joxo leen kër. ñooñu est-ce que na. est-ce que am na ay ay endroit yu légitime la parce que yooyu tamit jar na seet tam. waaw seen i mbir na dafa fekk rek dafa am ñoo xam ni dañoo jot ci kër yi te foon a jot am ñoo xam ne la ñuy tuddee ay ubbi am ñoo xam ne aussi yenn responsable état ñoom ñoo complice ak ñoom ba mën a jot ci yooyee kër. waaye dans tous les cas état am na suffisamment de jumtukaay pour mën a xool ña dëkk te war ñu foon dëkk dañoo foqar ci alalu jàmbur ñooñu soit état moo leen fa dugaloon état génnewaat leen fa wala ñoo xam dañoo def li ñuy wax ubbi dëkk jaay doole état ñëw aussi xam leen xamal leen génne leen jox leen feneen te ma jàpp ne aussi état bi xam ne dafa am yërmande ba tax tey bi Macky Sall ñëwee au pouvoir am na ñaar mesures yu njëkk a jël ci pour oyofal dëkkuwaay yi bi ci njëkk. mooy ñu wàññi prix loyer yi beneen ba ca topp mooy mu lancer un programme de cent mille logements foog naa ñu nag soo amee yërmande ki nit ñi ba tax ngay lancer un programme de cent mille logements sociaux war nga penser également à ces mille cent logements autrement dit ces millier de personnes yoo xam ne ñu logement parce que seen ay kër yaa ko toj joxo leen kër. te nag mhm. na ba ëpp foo ko mën a xalaatee rek. donc vraiment doon na baax aussi Babacar ñu mel ni yéen nga xam ñu ngi ci presse bi ngeen mën a gën a jàppale ñoo ngi seeni i yuuxu ba njiitu réew mi dégg ko ndax encore une fois amul dara la mën a justifier ñu toj kër jàmbur depuis 2006 war ko joxaat kër 2006 ba tey ji 2020 14 ans après nga bàyyi ko ah muy taxawal ak njabootam tasaare leen. Hmm. te it ñu préciser ni ñu ëpp ci ñu dëkk suñ côté yooyu di taa mooy rek ñiy tuddee tey jii néegi doole ndax dañuy nekk Ndakaaru ju liggéey jom jàpp leen. ñu xam aussi maanaam yitte yittey kër maanaam àqu kër ak gëddu kër ba tax ñu def ko yitte def ay économie dajale gauche droite la ñu am as néew te seen doole bariwul bañ mën a dëkk ci zone yu normal yi moo tax ñu demoon yoo xam ne sax xëy normalul waaye foofu seen doole foofu seen doole attan ñu dem jënd fa kër ngaf-ngaf yi ba am fa seen ñetti néeg ak saal kooku kon amul doole kon ku ñàkk doole nag ba tax mu dem dëkk ci zone boo xam ne baaxul boo ko fa jëlee jox ko kër gën nga koo dugal ci néew doole. Mhm. mouvement Sauver le Sénégal ñu la doon laaj sànq euh, sauver ci euh, lu tax mouvement bi jóg ak euh, luñ ci sauver Sénégal fi ñu toll. waaw mouvement Sauver le Sénégal mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi ko taxawal ci vers les années ay mille treize deux mille quatorze bi nga xam ne boobu le président Abdoulaye Wade fi nekkoon dañu dañ fi jógee ñu gis ni nguur gi bés daal di ñëw bëgg a jël doole jëfandikoo ci kaw askan bi. te it euh, comme doole comme comme yoon dafay kel ñëpp bu yoon euh, néewee doole ci am réew rek amatul benn citoyen boo xam ne nekk nga en sécurité ndax boobu gis nañ nguur dafa ñëw daal di ërtal ñi fi nekkoon ci lañ taxoon ay crier autre l'histoire nous a finalement donné parce que gis nañ sax kuréel yu baree bare ban jàppee ñu soxla woon nga gëj a dégg seen ay dégg seen ay mbir am na ci ñoo xam sax dañ leen ciblé woon dañ leen war a jàpp waaye bañ transhumé lañ leen bàyyi maanaam ñu gis na tey bu ñu bëggee sauver Sénégal nañu fexe ba au moins yoon ñu dooleel ko tur bi njëkkoon bëgg a indi sax mooy aar la justice parce que gis tey euh, Sénégal bu ñu jàppee benn homme politique bu dee Karim Wade la ay taxaw ñu taxaw créer mouvement libéré Karim bu ñu jàppee Khalifa Sall ñu taxaw créer mouvement libéré Khalifa Sall ñu ñu jàppoon nag pour Sénégal aaru il faut que mu am le vrai mouvement bu tudd mouvement libéré la justice parce que am réew tant que amul une justice bu indépendante libre amul benn citoyen bu nekk en sécurité parce que nga xam ne moom mooy falu ak njabootam mën nañ di jëfandikoo yoon di dal ci kaw askan bi dal ci ku leen neex te loolu danger ci am réew ñu gis également li ñu ragal ci lu bare ba tey yoon tey tey ji histoire jox ñu dëgg mooy maanaam euh, ni ni famille yi ak ni ni ni ni ni ni ni jëm yi jiitoo intérêt réew mi moo taxoon euh, ñu bañoon parti politique yi tënkuñu ay nit yoo xam ni bokk nañ ñeneen ci parti politique ñeneen ñi sax mosuñu politique am gëm-gëm ni il faut ñu mën a dépasser nag tey gi suñu considération partisane yi suñu clivage politique yi pour nekk nu réunir autour de l'essentiel mooy fexe ba li ñu bokk nga xam ne ab parti amul njëriñ tant que loolu aw aaruñu ko muy Sénégal ñu nan lañ ko nan lañ ko mën a aare mën a dépasser les les partis politiques loolu moom mooy jur mouvement alliance sauver le Sénégal da nga wax ne parti ñoo xamante ne euh, ay nit ñu jug mais yow xam nañ ne si wàllum politique jege woon nga fi Karim Wade lool. absolument tey mës ngeen mën est-ce que mën ngeen woote naan ay ñu farul fenn. waaw mais justement xam nga réew loolu mu koy avancé la c'est-à-dire bu fekkee ku nekk la nga nekkoon démb ca ngay nekk tey nekkaat ci ëllëg nekk ci ginnaaw ëllëg àdduna du dox. Karim Wade jege woon nañ ko jege ko sax ba tey aussi ah et ça nous le revendiquons partout parce que nit ki bu fekkee daf laa tànn def la xarit yow ni nga tànn ko def ko xarit àdduna war lu a dox lu tax ngeen def seqante ngeen defante lu ñaaw te jàpp naa ne Karim def ma en tout cas man def ma lu ñaaw may def ma ko lu ñaaw kon ba tey ñu continuer à garder ces relations te fekk au plan politique dafa am benn instant yu jël du recul pour gën a mën si jàpp nañu combat yi ñi bëgg a mëne ñi ngi ko gën a mëne ci wàllu citoyen que ci wàllu politique ndax dafa am fooy far te soo xasee ba far fenn de pour nga xeexal ñëpp dafay jafe pour nga am at itam dafay daal di jafe dans la mesure u am na ñoo xam bokk nañ ci yeneen i parti waaye ñu ànd am lu ñu tënk ñu ne ñoom ñu wóoluñu teg ñu ci bopp bi lañu war rek mu ngi tëddee njaaxaanaay loolu nag yàqul dara suñu cofeel gi ñu am ci président Abdoulaye Wade ak ci njabootam Karim Wade dañ koy revendiquer partout te gis naa ñu léegi temps bi jeex te am na loo xam ñor nañu loolu bëgg nañ ci waxtaan Babacar mooy mbirum gàddaay nga xam ni dafa nekk encore une fois benn situation boo xam ne ñun de xaw ma kan. mooy borom kër yi ñu toj ca gàddaay 253 famille la ñu génne seen kër jaay leen doole ku tudd Babacar Fall maa ngi bokkal Babacar Fall mu baax mi te wuteeg moom loolu doxalin ñëw jaay leen doole toj seen i kër ñu gis booy jamono ndengaleer 300 hectares la état bi mi ngi koy jéem solution donte solution provisoire la te ñoo gëm sax ni dañ ci war a jaar ko une solution définitive pour la paix sociale pour la stabilité la tranquillité dans ce pays ndax jaay doole dafa baaxul. état dañ jàpp ne su ma nee song problème mu trois cent hectares war na mën a am na wax dëgg yàlla faciliter régler problème mu quatre jàpp six hectares. mais ñu ngi ci quand même euh, ñoom victimes yi ministre euh, Abdou Karim Fofana dal na leen ministre intérieur aussi Aly Ngouille Ndiaye dal na leen ba dig na leen daal ne daal ñu saafara mbir mi. waaw mais digg ko la ñu sonn nag parce que mbiru gàddaay moom moo jiitu junni yoon mbirum Ndingler am nañ ci nag mbetteel trop parce que Aly Ngouille Ndiaye foog nañ ne gàddaay moo gën a jege Ndingler def trois fois ou quatre fois en l'espace de dix jours te Limaamu Laay la jàngee. te Limaamu Laay la jàngee dëkkoon kon foogoon nañ ne aussi farlu gi mu war a ci wàllum Bengaleer war nañ ko mën a wane ci wàllu gàddaay gàddaay moo jiitu junni yoon gàddaay c'était depuis 2013 te la ca gën a garaaw mu leer ni gàddaay population yi ñoo am décision de justice ce qui n'est pas encore le cas de Ndingler on nag di fekk Ndingler am solution waaye fi ñu rek mooy politique gu ñaari citoyens yu bokkul jotewuñu ñu dara ak waa Ndingler au contraire ñun fu nit amee rek nekk ci àq ak yelleefam dañ koy dañ ciy kontaan waaye dafa jaaduwul li nga xam ne moom mooy comment mu am gàddaay depuis deux 2013 te it problème bi au départ c'était entre Mbaye Fall ak waa gàddaay mais dans les faits soo ko xoolee dëgg-dëgg sax entre Mbaye waa gàddaay la ak ak ak bi ndax su Mbaye Fall moo tëj këru gàddaay yi daf ko def la complicité des agents de l'État ñu ngi jégalu temps bi mayewul waxtaan yëpp waaye kontaan nañu lool ci invitation bi. jërëjëf Babacar Mbaye Ngaraf jaajëf El Hadj Ndiogou